mënu may wax fi kilifa euh, te su may kilifa laa toogal ci aada ak ci at sëñ am di euh, maa ngi koy xoole sëñ Babacar Thiargane te xawma sëñ Babacar Thiargane maam Seex sax xawma ko ci sëñ maas laa tàmbalee xam-xam jàpp sëñ maju bi ma demee ba xam-xàmmee nag moom moom muy sëñ am di mii ma teg ko fu ma tegul kenn jàpp nun ñëpp moo nu gën ndax li tax ma jàpp koy lu man a leer la ku la gën ku la yar ku ne moo la gën te sëñ ndee gën ku fi ne ci tund wi ku la yar ku ne que sëñam ne yar moo gën ko moo gën ko la yar muy sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke muy sëñ Tuubaa jëkk ji ci sët ci li feeñ mu yar ko mu leer ma ne am na ngërëmam te ku xam sëñam di ku ne moom sëñ Moustapha mi xam ne am na ngërëmal sëñ Cheikh Mbacke sëñ Cheikh Mbacke eh, xam naa kenn mënu koo xam waaye liñ daa gis ci moom a gës niiw muy loolu wane na ko ci saayir doy na sëkk baatinam ñi ci des yàlla baaxe ko muy taaw muy muy muy sitëb sëñ Tuubaa bi mag ci mu yar sëñ am di mi looloo tax ma jàpp ne ñëpp sëñ am di nu gën ndax moo nu gën ku nu yar eh, man nag mu may ma lool ci boppam dama jot ne dama tëxit dama yaakaar ne mayu ko kenn ndax moo ak fop xam nga sëñ am di mii bu dee foon sama loxo yu yu yu tuuti yu làgg yii sëñ Tuubaa tax te moo ak fop te su may nuyu dañuy dañuy dañuy xëccoo sujjóotante bi waaye nag euh, mën naa koo jàppe ci geneen wet ndax waajuram ak suma waajur ñoo bokk na ci daara ji ci mbuso fi kër Mamatar Ndiir bi fi waajuram di jóge it la taxan suñ Babacar Thierno indi ko fi am na fi lu ko njortam ndax liggéey na ba làq fi ngërëm na sëñam di liggéey ca ay tayif ak baylaa ci ndigal sëñ Cheikh Mbacke ba làq ngërëm waajuram fii la jëkke làq ngërëm mu doon koo xam ne kii itam nun waa département bépp sëñ Amdi Njaay mi royteef la ci nun lañ ko war di roy di topp ci tànkam di diglu loolu nag yàlla xam naa dogal na ko ci ñenn ñu dogalugu ci ñu des waaye bu doon damay tànn dëkkaale li man dinaa dëkk ak sëñam di ci benn dëkk sëñ bi nu ngi ñaan ci barkeb sëñ mbay yàlla guddal sa fan yaag sarak ji di di man muy moom nuy kenn nit kooku xam naa nit ñi xamuñu ko waaye moom xam na xam naa di di la seereel ci sa kanam ne sant naa ko maa ngi ñaan yàlla yàggal ko fi ba li bëgg ci topp gi la topp lim ci bëgg lépp suñu borom defal ko jóg wala ndax eh, damay wax ne ku toppul nit ka war a topp du am la nga war a am te ku topp ko la nga war a topp looroot le moo koy for kon yal na yàggal la yàggal seen diggante di la sant sëñam di ci turu sëñ Muudu Ndiir mi nga xam ne moo fi nel sëñ Baaba tey ci ko suuf di la siyaare ci bis bi ndax bis bi ëppale nu la ci dara day mel ni sax yaanu ci ëppale ndax nun jugu naa fente yow da ngaa jóge fa nga jóge ñëw bu agsi loolu lépp su la suñu borom bi ne la jooju tuyaaba damay jot ne da nga nu jéem ndax ban xëyoon fii rek lañ toog kon sëñ bi njaay ñu ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla yàggal la fi lool ci kanam njaboot gi te daam lu ma sëñ mun taa wax na bul jombale sa bopp dara te bu la kenn ëpp fit kon sëñ am di yow itam loo lu mbir rëy rëy rëy yaakaar la ne mën nga ko nga euh, du doon yaakaar yàqin bu wóor ne lii mbiir nii muy rëy rëy man am ni njaay mën naa ko ndax liggéey nga ko say waajur liggéey nañ la ko kon yàlla na doon barke bu sotti ku ci sa kaw ci barke Serigne Touba dara jaay sëñ Mountakha jërëjëf Ndiaye man daal mënuma wax dara ci yow sax <laughs> ولي السلامة والعافية ويوم حياة حياة صافية بركة سيدي jërëjëf jërëjëf